lu de xamal patriote yi nak moy que ne nañ bu baax liñ parrainage ngir candidat bi président Ousmane Sonko mi nga xamné plan A un plan B un plan Z wa parti bi di Pastef ne bu leen kenn divertir nañ gën farlu nous préparer seeni armes ñëpp nañ taxaw ngir wajal parrainage bi daldi parrainer di président Ousmane Sonko. ngir mu teewal leen ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm ndax ne ci réew mi di Sénégal amut lenn lu war a tere kii di président Ousmane Sonko mu bokk ci jongante présidentielle 2024 yi ñu jëm li ni mel la kii di Djibril Ndiaye di chef de protocole bu président Ousmane Sonko daal di yëkkati daal di koy jébbal patriote yëpp.